alors euh, professeur Ngouda euh, procédure bi bu ñu koy teg naka la war a demee bu ñuy wax ne amnistie sànq maa ngi wax ne c'est pour des faits aujourd'hui xel yépp bu ñu waxee amnistie et la presse même fi ñuy njëkk a dem mooy Karim Wade et Khalifa Sall procédure bi naka lay jàllee naka lay demee. waaw je pense que maa ngi gërëm doyen Babacar ak l'honorable député Aba ci échange bi je pense que c'est assez intéressant pour. comprendre mais procédure bi d'ailleurs ñi ngi ci sax quasiment parce que mm. comme ni ko doyen Babacar waxee je pense que le président de la République c'est lui qui définit la politique pénale du pays donc su fekkee ne donc amnistie c'est donc voilà une loi boo xamante ni nii day ñëw pour des questions pénales yoo xamante ni nii donc la koy laal donc dinaa ci ñëw mais du point de vue de la forme comme ni ñu ko waxee dafa am parce que conseil des ministres quand même c'est solennel bu ko foofu noonu c'est la ñuy délibérer pour euh, donc euh, les projets de loi yi nga xamante ni ci gouvernement bi lay jógee war a dem assemblée nationale la deuxième chose mooy Sénégal dafay bàkkee boppam ne état de droit la titre de respectabilité la et je pense que le président le premier ministre Amadou Ba axe yi mu teg trois axes yi mu teg benn bi état de droit ci la bokk bu koy wax quoi donc day dugg foofu la troisième chose mooy Euh, état du Sénégal dañ ko condamné dans l' affaire Karim Wade ne ko da nga war a exécuté wu ca ONU Nations Unies Sénégal a waroon a jël ay procédure comme ni nga ko waxee pour intégrer loolu parce que normalement Karim Wade ak ak yelleefam dañ ñu ni da ngeen ko salfaañe parce que daf ñu yóbbu ci cour de justice de la CEDEAO ñu ne ñu privilège de juridiction la am ndaxte article 101 bu constitution bi loolu la woon bon procès bi am les juridictions sénégalaises sont souveraines bu ñu décider maintenant nit ñi duñu dellu ci décision de justice bi mais mun nañu xool les procédures fan la ñu jaar est-ce que àq ak yelleef ñu ne àq am yelleef jaarul yoon donc Sénégal nañu jël matuwaay pour delloo ko àq ak yelleef beneen bi stop xalifa Khalifa Ababacar Sall aussi procès am Sénégal dafa demoon ci procès bi su ngeen xoolee sax même délibéré bi bi muy génn euh, au niveau de la cour d'appel même donc le PV dañ ko annulé woon parce que loolu donc ci aspect de procédure yi nga xamante ne la woon dafa doon violer le droit à un procès équitable la présence de l'avocat dès les premières heures donc bi ñu condamné foofu noonu léegi su état du Sénégal ñëwaatee parce que bu ñu fàtte ne jour bi ñuy voté la loi sur le terrorisme au Sénégal le même jour dañ doon laalaat code électoral bi mm-hmm. Mm-hmm. te du bi ñuy réviser code électoral bi indi code électoral bu bees opposition bi dañu dem L29 ak L30 moom moo nekkoon L31 ak L32 yooyu ñooy concerné Khalifa Sall ak Karim Wade mm. parce que bi ñu demee conseil constitutionnel comme nu ko honorable député Aba waxee man sax dama ko daan wax tout le temps boo xoolee seen casier judiciaire doo fa gis déchéance mm. am na condamnation pertu ñu woon sax les droits civiques donc boo xoolee sax le ministre Sidiki a waxoon na ko mais bi ñu demee conseil constitutionnel daf ne leen kat mënu leen nekk candidat parce que dafa am élément nouveau bu bu am ci code électoral bi mooy pour nga nekk candidat il faut nga am carte électeur te yéen amu leen ko donc dafay am benn pièce bu leen manqué léegi soo xoolee ci loolu lépp comme état du Sénégal aussi moom moo defoon la réforme bi nga xam ne de 2018 dafa doon laal article L57 di dugal la notion d'électeur donc au lieu dossier de candidature bi di nekk huit pièces et neuf huit mentions léegi day nekk neuf pièces et neuf mentions donc loolu dafay jafe-jafe yooyu lu ñu génne boo xoolee donc su ko fekkee état du Sénégal jël na ko ba pare biral ko parce que loolooy avantage bi c'est-à-dire conseil des ministres suñ ko fa bindee même bi yëpp dinañ ko gis ça veut dire que l'état du Sénégal est par rapport à certaines décisions yoo xam ne dafa affecté respectabilité notre état de droit la deuxième je pense que bu ngeen lire la loi Ezzan 2005 conseil constitutionnel daf koy rappeler dafa naan fu ñu jëlee loi euh, loi d'amnistie rek c'est parce que c'est pour apaiser comme ni ko honorable député Aba waxee apaisement politique wala apaisement social et fii je pense que configuration politique bi laaj na apaisement politique donc su fekkee président de la république il est l'élu de la nation il est un juge au-dessus des partis bu fekkee dem na ba xalaat loolu noonu mënuñu dudu rafetlu loolu parce que le climat politique a besoin de sérénité pour que les acteurs bi ci topp nag le doyen wax sax soo xoolee question amnistie Khalifa Sall ak euh, Karim Wade du lu bees président de la république sax moom du rex su ngeen fàttalikoo Ousmane Sonko événement mars yi moom bi mu génnee contrôle judiciaire bi bu ngeen fàttalikoo son discours bi muy listé points yi daf ci boole woon loolu la deuxième chose su ngeen fàttalikoo lii di m ci ay points de revendication daf si boole woon ne nañu amnistie nañu delloo ñoom dañu ne woon nañu delloo Karim Wade ak xalifa Sall seeni droit kon nga xam ni processus la laaj et doyen Babacar ni mu ko waxee aussi le président Macky Sall moom France 24 ak RFI toogoon na fa sax après même deux demi ne c'est une possibilité mun na nekk donc nit ñi ñu ngi ko doon xaar mais man nag man. ñaari yëf mooy sama interogation ci loolu avant may ñëw ci li nga ma laaj am na solo pour mhm. parce que su fekkee président de la République dafa wax la garde des sceaux xalaatal ma yan possibilité mooy peut-être que pareegul. ah oui ah non je pense que le président de la République booba ba tey comme ni ko doyen Babacar pour la première fois ñu dégg mu yëkkati yooyu kàddu ci conseil des ministres. non xam nga amnistie xam nañ ni ñu koy defee juridiquement. une jurisprudence du conseil constitutionnel mu ngi fi dama bëggoon wax foofu ni amnistie du grâce grâce président c'est une dispense d'exécution de la peine maanaam lu ñu wax de maanaam yéen jege nañ leen dootu ngeen tëdd li leen dese dispense mais condamnation bi mi ngi fi amnistie donc moo tax article 47 daf ni président moo am droit de grâce article 67 bu constitution nag ñëw ne la assemblée nationale mooy jël les lois d'amnistie parce que bu ngeen xoolee sax conseil constitutionnel sax daf ko nangu droit sax daf ko nangu parce que amnistie dafay porter attente au principe de la séparation des pouvoirs ndaxte ni justice di fonctionner su boobaa législateur bi da ciy dugg mais constitution bi moo ko nangu parce que il faut mu am jaxasoo un peu ci pouvoir yi pour ñu mën a débloquer certaines situation loolu moo tax assemblée nationale day mun na jël les lois de validation mun nañoo def tey benn concours concours bi am erreur ñu recevoir ay fonctionnaires fonctionnaires yooyu dem ba ñu recevoir leen deux ans après ñu génn di liggéey ñu xa jàpp ni concours bi dafa amoon erreur mais ñooñu ñëpp soo bëggee jëlaat concours bi ñu bëgg leen a jëlewaat foofu ak ni ñu commencé ñu ne assemblée am nga droit jël une loi de validation amoon na jurisprudence bu fi amoon ñu koy tuddee l'arrêt àllangom mun na am aussi une loi interprétative maanaam loi boo xam ne assemblée nationale donc day ñëw di interpréter ay situation bi nag mooy loi d'amnistie amnistie nag boo ñëwee dafay effacer nit ñi sax dañuy wax les faits mais c'est plus que les faits c'est des faits et des peines. les peines oui et des de telle donc, période mun nañ ko fixer à une période déterminée comme aussi mun nañ ko fixer aussi à une, une période illimitée indéterminée. maintenant les lois d'amnistie maintenant te ñëpp dañuy defee ni Sénégal mun nañ amnistier ñëpp mun nañ amnistier lépp mba ci conseil constitutionnel daf cee def erreur en 2005. lu tax hmm. parce que moom nee na législateur bu Sénégal mun na jël loi d'amnistie amnistier lépp déedéet Sénégal mënuñu fi amnistier lépp crime contre l'humanité kenn munu ko amnistier te Sénégal xaatim na le statut de Rome de la Cour pénale internationale bi nga xam ne day dugal les catégories de crimes muy crime contre l'humanité crime de génocide crime de guerre crime d'agression ak beneen bi ñuy waxtaanee nga xam ne dafa xaw a compliqué muy crime de terrorisme mais en tout cas am na loo xamante ni c'est imprescriptible kenn mënu ko amnistier maintenant par contre yoon moo jox cër assemblée nationale ba nga xamante ne tey war na mën a jël lépp loo xamante ne nii dañu ko jugé woon ba définitivement ñu mën ko amnistier su boobaa nag. Mhm. ma teeral lu tax nga wax ne le président de la république Macky Sall parewul. oui pour amnistier. non waxuma parewul dama ni dafa mel ni. dafa mel ne parewul sotteegul waaw. xam nga lu tax parce que mbir mi dafa yàgg. doyen Baba Gaye Gaye nee na depuis 2018 bu fekkee depuis 2018 la ko président njot ba tey mu wax ni garde des sceaux xoolal ma yan solution yan possibilité possibilité la wax mhm. Khalifa Babacar Sall ak Karim Wade xam nga lan moo leen tax tax ñu nekk candidat benn moo benn mot ci code électoral bi benn mot dañu leen a condamné bi ñu leen condamné état du Sénégal gis ni ñi mën nañoo nekk candidat toujours c'est ça la vérité xooxoo su ngeen xoolee le doyen mi ngi nii sax je parle sous son contrôle code électoral consensuel code consensuel 92 dafa indi woon ay dispositions yoo xam dañ ko consolider woon d'ailleurs sax ñoom xam naa ne le président Abdou Diouf bi mu leen di wax ni leen du ma ci laal virgule code boobu indi ay dispositions yoo xam ne ñun ñu ngi ko tibbee ca France moo doon article L31 ak l dañ doon ñëw chaque jour di répété wu mhm. yooyu da doon wax matériel foofu fa am na solo mhm. suñu la condamné ci yii catégorie de de de munoo nekk ci liste électorale loolu la ñu waxoon mais booba temps article L57 dafa doon wax rek ni sénégalais bu ne am nga droit doon candidat donc ñàkk carte électeur mënu la woon teree doon candidat 2018 bi ñu condamné Khalifa Sall ak Karim Wade ba pare nag ca la ñu ñëw ñu dugal benn réforme boo xam ni day dugal tout sénégalais électeur te xamoon nañ ni article L 31 ak L 32 ñoo devenir L 29 ak L 30 dafa doon bañ ku ñu condamné li daal Khalifa Sall ak Karim Wade nga ñàkk carte électeur donc da leen di viser directement tey moo boobu soo ko retiré woon ci code électoral bi rek dañuy mun a doon candidat donc loolu possibilité la xam nga loolu yomb na. Mm-hmm. beneen bi ci topp soo jëloon tey une loi d'amnistie comme ni ko honorable Aba waxee wax am na solo L29 ak L30 mën nga koo mën na leen a remplacer nga bañ a jël euh, loi d'amnistie. nga abrogé ko. non doo ko abrogé mais mën nga ni peine complémentaire. Mm-hmm. ak peine accessoire Sénégal juge moo koy prononcé pour mu mun la dal maintenant foofu nag président de la wax. xam nga lan moo ci am solo pour nga xamante ni forcément ñu dem vers une a ñëw ak bu mu ñu laal code électoral wala ñu indi loi d'amnistie mooy conseil da cee àddu. parce que opposition da ko kalaame bi ñuy voté loi terrorisme article yooyu conseil constitutionnel ni méngoo naag suñu constitution su dee loolu nag mooy méngoo naag constitution donc li ma la bëgg a wax mooy Karim Wade ak hmm. Khalifa Sall ils ont perdu des droits qu'ils n'auraient dû jamais perdre parce que dañu manipuler l'article l du code électoral mais tey jii nii y a plusieurs possibilités qui s'offrent mais bi gënoon a yomb mooy soit nga dindi la notion L57 wala nga laal L29 L30 alors et pourtant président de la République Macky Sall moom choisir ci benn parce que yàgg na ko wax c'est le mot amnistie qui vient euh, ci li nga xamante ne moom la wax et que ñëpp moom la ñu xalaat également pour le cas de Khalifa et de Karim Wade. waaw mu jublu ci lan en quelque sorte c'est que li ñu fi wax yëpp bëri na trop ba nga xam ne.